tey bésu mercredi 20 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat examen virologique yi may waaj lim ci junni ak ñent fuk ak ñaari test yi ñu def juróom ñent fuk ak ñaar positif Manam. juróom fukk juróom-ñett fuk ak ñetti cas contact fukk ak ñeenti communautaire ñaar ci Sacré-Cœur ñaar Benn Tali ñaar ci Géejawaay ñaar ci Touba benn ci HLM Grand Yoff benn ci Parcelles Assainies benn ci Wakam benn ci Bel benn ci Kër ak benn ci Yëmbal juróom fukk ak ñetti si ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñeenti cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am woññi nañu